ci ñaari fan yi mu am ay xibaar yu bees yu ñeel jongante falum jiitu réew bu atum 2024 conseil constitutionnel gantal ci recommandation yu tukkee ci dialogue nationale bi ñu tànn ay bés yu ñu war a amal jongante yi ceeg ci njiitu réew mi daal di gàntal liggéeyu gouvernement bi mu doon ay xibaar yaa nga xam ne ni njiital coalition Déthié Fall 2024 àdduna ci ci janoomam ak taskatu xabaar yi di félicité nag le conseil constitutionnel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 sera en campagne partout au di tendre la main aux Sénégalais et aux Sénégalaises d'ici ci dogal bu conseil constitutionnel jëloon mu ci sàkku ngir ñu woyal processus bi ak ñaar fukki candidat ak juróom-ñeent yu ñu nangaloon seen candidature waaye Déthié Fall jàpp ni ay fan yu ñu gantal processus bi mënoon nañ ko moytoon dif bu nekkee njiitu réewum senegal defoon na ca la ko war.